serviteur et euh, en, en, en phase et à part entière serviteur et aussi membre euh, du F24 d'accord donc euh, le parti les serviteurs ay euh, membre du F24 loolu c'est une information mais d'abord bu ñuy waxtaanee benn sujet dafay baax ñuy indi euh, histoire récente ak le pourquoi du comment euh, ndax Sénégal dafa réew mu am solo boo xam ne ñu am solo ñoo ko dëkkee histoire am aussi souvent dañuy seetlu ni lu bëri ci histoire am bu ñaaw day dellusiwaat euh, jàpp naa ni débat bi aujourd'hui euh, euh, sur cette TV 12 mai 2023 waruñu ko fa woon posé parce que en 2011 dafa am lu ñu taxawaloon lu ñuy tuddee M23 le M23 sa mission était d'empêcher le président à l'époque Abdoula maitre Abdoulaye faire un troisième mandat loolu moo nekkoon mission mission boobu ñu dem ci ba am nañ ci gain ci benn côté am ci échec parce que nul n'avait empêché le président Abdoulaye Wade mu dem mais peuple bi empêché woon na ko mu am troisième mandat empêché wuñ ko mu am troisième candidat parce que jaar na moom nee na fi mu war a jaar mais peuple bi comme est souverain bi ñu demee au soir des élections peuple war na ko ne ñun ñu nga def troisième mandat ñu ñëw après du après douze ans mu des neuf mois pour ñu dem élection 2024 douze ans après on pose le même débat on met les mêmes actes on pose sur ici on discute sur les mêmes sujets pour man c'est un peu dommage dans un pays comme le Sénégal rapport bi sànq sa a ça a sa raison d'être même ci sujet boobu parce que dañoo jàpp ni Sénégal dañoo war a nekk une démocratie boo xam ne dafa nekk une démocratie ki évolue mais warul nekk une démocratie buy dellu ginnaaw donc le f pour man dans la forme comme dans le fond nekkul woon lu mën a lu war a mën a exister mais quand même devant l'impossible nul ne tenu. Hmm. ñu jógee ci deux élections yu am solo l'élection locale du de janvier 2022 l'élection législative de euh, vingt de ñu jëm ci élection bi ëpp solo ci am réew muy élection présidentielle mhm. ñu gis ni ki nga xam ne moo jiitee réew mi tànk jéego yi mu nekk mooy def troisième candidature jaar fa maître Abdoulaye Wade jaaroon léegi nag xobbeeku ca bala nga les mêmes histoires les mêmes effets les mêmes causes moo fi nekk donc ñu teg force vive de la nation parce que li gën a yoo tax loolu tegu dañoo jàpp ni sur certains principes Aïcha réew mi dañ ci war a ànd c'est-à-dire surtout l'opposition sénégalaise ku ci nekk mën na opposer wu de son côté de son côté de sa manière ku ci nekk mën na bu élection jotee nga demal sa bopp dagaan baatu askan bi mais yaa a des choses yoo xam ne bu amee yaa a des sujets yoo xam ne bu tegoo on est obligé d'être ensemble intérêt exclusif de la nation